bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimu saalihat wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa nabiyina muhammad ibn abdallah wa ala alihi wa asxaabihi wasallama tasliman euh, mbokk àdduna maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci di ñaan yàlla defal ñu jàmm def ko ci réew mi Sénégal def ko ci àdduna bi yëpp euh, di jiital ci nuyoo bi nag kilifa diine yi nga xamante ne ñoom ñoo jiite diine ci suñu waxee dañ njëkkee ci ñi nga xam ne ñoom la seeni maam euh, taxaw woon diine ji ci jaaree la ko ci yoon tariqa yi nga xamante ne turuq yi nekk ci biir Sénégal nga xamante ñoom ñoo jéggi Eh, dem fu ne ci adduna bi eh, di nuyu tim kilifa aada yi jiital ci njiitu réew mi ak mbooleem ñi nga xamante ne rek ñoom jiite ci wàllum aada ci réew mi di ñaan yàlla defal ñu jàmm àdduna defal ñu ko ci àllaaxira eh, li ñu ñaan muy saadatu daaray ni di sant yàlla beneen yoon ci ni nga xam ne Euh, yàlla def na ko parce que tim yàlla dafa wax ci alquran ne la in shakartum la azidanakum bu ngeen ma sante ma dolli leen kon may nañu wér may ñu tawfiq te loolu nag ci loolu lañ koy sante euh, di am tuuti ay kàddu yoo xamante ne bëggoon nañ ko yëkkati jëmmale ko ci réew mi ci ni nga xamante ne moom la réew mi di doxee ak ni ñu war a doxalee euh, li ci jiital mooy ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom lañ dénk réew mi te réew mi nag buy dox dafay doxee ci ñaari tànk dafay doxee ci diine mais dafay doxee ci aada euh, kilifa diine yi nag ñoom ñi nga ñooy ñi nga xamante ne li ëpp ci senegale yi ñoom la ñuy déglu li ëpp ci sénégalais yi ñoom lañuy ñuy déglu parce que kenn ku ci ne am na ci kër goo bokk buñ ne kër goo bokk am na nga am nga sëriñ yaa ngi bokk ci yoonu murit wala yoonu tarix tijaniya wala yoonu qaadir wala laayeen ñoo ñoo nekk ci réew mi ŋànk ko xataa ñi nga xamante ne sax ñoom it toppuñ sax yoonu tasawuf waaye euh, suñ gisee ñu wax loolu mooy lii ñuy tuddee muy wàllum séentum weer bi nga xamante ne dafa indi indi na indi problème ci réew mi euh, ñu amoon ci xalaat boo xamante ne su fekkonte ne état doxale woon na noonu am naa yaakaar ne mbir mi dina tegu ci yoon su fekkente ne ñoom ñoom yi neen kenn ku ci ne ah état oo na xalif général yi ñu fexe sëriñ bu nekk xalifa bu nekk nga ut kenn benn membre ñu kenn ñu dajale leen boolente leen ñu ne nag ñii ñoo yor wàllum séntu ci weer parce que bu boobaa bu fekkee Tiwaawoon la bokk wala Medina Baye wala lew nañu seen wala Touba wala Daaru Salaam wala Ceneba fu mën a nekk ñëpp ñu consulté wu nga xamante ne bu weer bi feeñee am benn commission boo xam ne ñu ñoom ñooy génne lii ñooy wax weer feeñ na weer bi feeñut. Euh, boo xoolee fan yi communication baa ngi jàll bu baax ci li nga xam ne ñii ne ñoo ko war a jiitu ba eh, suñu bàyyi ji bu baax ji euh, Ahmed Moussi Diagne Thiam bi mu génn àdduna ay xëccoo yaa ngi ci am ay buuxante ay njakkalante parce que kenn ku ci ne créer sa commission loolu yëpp commission yooyu yëpp lañu war a dajale président wala état Sénégal moo war a am fulla ak fayda goo xamante ne na consulter sëriñ su ko defee association islamique yooyu yëpp ñëw dugg ci biir képp ko xam ne am nga association islamique nga ñëw dugg ci biir nga nekk fa membre ñu euh, ñu organiser ko buñ ko organiser su ko defee dina xam ne waaye bu fekkente ne. Eh, da ngay gis eh, association des imams et du ulama man doon tamit bokk naa ci parce que bokk ci mooy nga am carte de membre membre laa ci association des imams et du ulama du Sénégal doyut wala ñu ne ñii lii du alal boo xamante ne Iyane Thiam moo ko Moussine ko moom bañ koy donn du lu ñuy donn nekkul lu ñuy donn mbir la boo xam ne organisation la te organisation dafay am nomination dafa nomination daf koy am ñu ne ñii lañ ñii ñoo léegi mus musi génn àdduna ñi yoroon mbir mi ñooy defaat élection seen mbir ñu am ku ñu fal waaye fi mu ne boo demee li seentu yàlla dafa bari ñii ñu ngi wéeru ci jamaate waadu rahman parce que duñ nangul ñi nga xam ñoo ñu ngi si yoonu tasawuf seen xalaat duñ ko nangu ñi si yoon tasawuf ñoom it duñ nangu ñii nga xamante ne ñoom it ñu ngi bokk ci jamaate waadu rahman wala xarakatul falaax duñ leen nangul kon ñàkk a nangu yooyu nañ fexe état mooy ki nga xamante ne moom moo ko organisé parce que moom lañ dénk réew mi te boo demee tey lu mel ni Gambie wala Mauritanie Mauritanie tey lu mel ni Mauritanie boo waxee nañu ñu ne Mauritanie dawla islamique la Sénégal sa république islamique la parce que bu ne mu nekkee dawla islamique euh, waaye ñun nitu diine li ñu dawal fi moo ëpp nañ fexe ñu boolante kàddu yooyu yëpp ñu def ko muy lenn parce que dawla islami tekkul ñu bind ko ci këy rek waaye pratique bi ni ko Sénégal di pratiquer kenn ku si ne gis na Sénégal diine ji nu mu fi mel ñaata nit ñu jóge ko ay réewu réew parce que ñi nga xam fa l'islam jóge koo sax ñoom dañuy jóge koo ñëw fii ci réew Sénégal ngir xencu fi l'islam fi tariqa bi jóge koo tariqa tijaniya may dañuy jóge koo réew ak réew ngir xencu fi tariqa bi kon yooyu yëpp dafay nekk loo xamante ni rek il faut ñu organiser ko dajale ko boolante ko xool li nga xamante ne moom la ñu am ñu teg ko moo gën pàcc xoob yi kii xëcc jaar nii kii xëcc jaar ni su ko defee bu bés ba jotee ah ñii buñ ne weer feeñ ñii feeñut ñii feeñ na yooyu yëpp waratu nekk problème yonent bi salaa salaam wax wala ñu ngi wax ne borom xam-xam wax ne ixtilaaf lu umat rahmatun wuute xeeti yërmande la waaye nag am na wuute yoo xamante ne mënoon naa ñàkk parce que weer bi ci benn asamaan lay génne du gën si ñaar asamaan waaye nag heure yi ñooy ñooy wuute su fekkente ne tey Saoudia jiitu na la benn bés wala mu jiital ay heure wala Mauritanie bi jege ñu jiital ay waxtu wala Nigéria bi jiital ay nangam nga bugg a fexe ànd ak moom bu boobaa loolu du mën a nekk. loolu yëpp lu koy indi te jarul sax ay appareil ñu uti dem du uti ay weer beeg déedéet yooyu jaru ko nañ jëfee li xadiis yu sallallahu alayhi wax fa in ghumma alayhim fa akmilu iddata salaatina shaaban na ngeen mottali trente jours yi muy si koor gi muy si koor gi. su ko defee nag loolu xam naa gaa yi nga xamante ñoom dañoo sant Samba ak yooyu ñoom moom bu koor gi naree ñëw dinañ fexe ñay njëkk a fa ñuy njëkk a wax ne feeñ na ñooñu sax duñ si nangoo bokk waaw waaye nag bu koor jotee nag bu woor jotee nag ñay njëkk a wax feeñ na ñoom ñoo siy jiitu kon te gis nañ fi ba sonn ñoo xam lañ daan jiital ne ñu ne la weer bi feeñ na nga ne weer bi feeñu ba pare nga ëpp dem fi neneen kon yooyu yëpp nañ ko moytandiku te nag euh, bu ko defee bu boobaa. Ah, lii buñ koy buñ koy def nañ fexe ñu dajalee nit ñi nit ñi falee ay assemblée def ay bureau assemblée def nangam nañ ko yóbbu assemblée ñu voté ko ñu voté loolu loi boo xam ne voté ko ñu ne léegi nii lay demee ñu oo xalif général yi président convoqué mboolem xalif général wala mu def tournée yónni ministre bi nga xamante ne moo yor intérieur wala bu mën a doon bu aju si wàllum yooyu mu dem su ko defee mu xool ñu xool consulter sëriñ sëpp wax ak ñoom kenn ku si yëkkati kenn yëg ne kii moo ñu représenté foofu muy loo xamante dañ koy organiser dañ koy euh, maanaam ne lii moo dox léegi bii lañ euh, nangu keneen koo xamante ñu ngi dégg nga yëkkati ay kàddu yoo xam feeñ na wala weer bu feeñut ñu am luñ doxaleek yow loolu daal mooy li nga xamante ne rek loolu lañ jot jottale ci côté boobu euh, di ñaan yàlla defal ñu jàmm ci réew mi di bàyyiloo xel aussi ñit ñi nañu respecté suñu kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite. nañ leen respecté parce que njiit muy euh, président raïs tur la yàlla da ko jël ci nguuram gi ñoom lu ko ci jox muy sëriñ bi kazalika waaye nekk ci réseaux sociaux yi di saaga kilifa yi kilifa diine yi wala kilifa aada yi loolu du yaru teggin nañ muñalante ki nga xamante aussi moo jiite réew mi président ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla yàlla may ko wér euh, bu ko ko mayee incha allah nga xamante ne ñi mu nekk xam gis ñi mu nekk ak su ko defee moom it ñi nga xamante ne ñoom la doon liggéey na fexe ñoom ñëpp kenn ku ci ne mu récupérer la ngeen toog waxtaan àddina bi nañ def dialogue social bañ a def ay dialogue politique parce que dialogue politique bu amul benn njëriñ sonal ñu rek lay def mu ñu defee dialogue social ànd ak ñi ñëpp waxtaan xool naka la ñuy doxalee ci réew mi di ñaan yàlla yàlla yàlla defal ñu jàmm di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp euh, ki doon wax ak yéen di imam Mokhtar Sylla président association Al I'lam pour la promotion de l'éducation à la culture islamique wa axiru daawaana an alhamdulillahi bi alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu